Monsieur le commissaire de police de Mbaké, Monsieur Yoro Seydoudia, représentant le président de la CRA, Monsieur Amadou Amadiba, directeur du CEREPS, Monsieur Mor Angueï, responsable politique, directeur général de Fallou Galas, Monsieur Maïse Selegnan, Papso, Monsieur Souleymane Diaw, président de la SOCRA de Bambay, que je demande de l'applaudir fort pour plusieurs raisons. Jules a quitté Bambay jusqu'à Mbaké pour assister cette soirée. C'est un ami d'enfance. Depuis 86, on est ensemble et on ne s'est jamais quitté. On ne s'est jamais chamaillé. Nous avons une différence. Nous avons une Je remercie aussi Demba Sey qui est là. Il est de la délégation de Djurbel. Mais entre Demba et moi, c'est autre que des amis ou bien des collègues arbitres. On a été ensemble sur, euh, dans la même classe, de la 6e à la 3e avec le docteur Abdoulaye Nian. Donc Demba, bonsoir. Je remercie aussi mes belles qui se sont déplacées de Dakar en Mbaké. je remercie toute la population de Mbaké, sans exception. Je remercie toutes les populations de Mbaké, je dis bien. Honorables invités, à vos rangs et qualités, je suis très fier ce soir. Li Mbaké Rek Semaine passée, on était avec le mouvement Dardar. que je demande encore à l'assistance de les applaudir, des jeunes braves, dynamiques, engagés, solidaires pour la cause de Mbaké. Le mouvement Dardar, si on avait trois mouvements comme le mouvement Dardar, Mbaké serait comme Paris avant 2030. Ça, je suis sûr. Parce que c'est des jeunes qui sont engagés, c'est des jeunes qui veulent le développement de Mbaké. Je ne pouvais pas continuer sans remercier nos collaborateurs de tout le temps. L'ODECA, par là je veux dire la zone 1, la zone 2, la zone 3 et la zone rurale. Parce que les arbitres de Mbaké que vous ici couvrent tout le département de Mbaké. De Mbaké à Sayo, de Sayo à Taïf, de Taïf à Koloban en passant par Mar et Dala. Bravo, chers soldats du sifflet. Je vous remercie. Je remercie tout le monde. Si la fête est belle aujourd'hui, c'est grâce à ces messieurs qui sont là et qui sont là en face de moi. Je ne veux pas citer pour ne pas oublier certains. Mais si la fête est belle aujourd'hui, toutes les populations de Mbacké, quel que soit leur rang, ont contribué pour la réussite de cette soirée. Que ça soit en conseil, que ça soit financièrement, que ça soit matériellement. Mais il y a un homme qui Je demande à toute la salle de se lever et de l'applaudir. C'est le directeur Amadi Ba. mon frère, mon ami. Applaudissez-moi le directeur Pourquoi Il a fait un geste que lui-même il ne se rend pas compte. Merci. Amadi depuis trois ans, on organise la au niveau du CEDEPS. On consomme son courant, on consomme son eau, on utilise ses espaces Et il ne nous a jamais demandé un franc ou quoi que soit ou demandé ce qu'on gagne dans ce merci. Mais non, nga mën a mel parce que am bon jaamu séeréer foog nga teral séeréer merci beaucoup donc vraiment. lii Mbacke moo ko moom nekkatul yëfu Ablaye Faye ren dañ ne woon duñu def nuyu di sifflet mais partout dans Mbacke chacun nous demande il faut faire la nuit du sifflet c'est devenu une date dans l'agenda du département de Mbacke kon monsieur le maire nous vous demandons encore une fois de soutenir les arbitres pour l'organisation de la nuit du sifflet jox ma enveloppe le maire les arbitres vous demandent solennellement de leur offrir une parcelle pour y construire le siège des arbitres de Mbacké. Nous avons un partenaire qui peut construire, mais nous n'avons pas de parcelle et le partenaire ne veut pas construire. Tant qu'on n'a pas de parcelle, il n'achète pas de parcelle. Publiquement, solennellement, nous vous demandons de attribuer aux arbitres une parcelle pour la construction du siège. Ouais. Voilà, beaucoup. sous vos applaudissements. Le maire a dit qu'on remet ça au secrétaire municipal et officiellement il va régler ça kon arbitre monsieur le maire wax na ko. tàccu leen loolu waay monsieur Abdoulaye tey ay doléance rek la ñun arbitre yi nee nañ déwén yow yaay pare nii di soo jëlee sa parole na nga wax ci ndax di nga ko def wala doo ko def. que léegi néew di sifflet dafa nekk loo xam ne ñun moomatuñ ko waa Mbàkke ko moom te nee nañ ñu fokk ñu koy def te ay doomi Mbàkke ñoo fi daje fii kenn ñëpp Mbàkke lañ dëkk kon waa Mbàkke gàcce ngala sañse yi rafet na toogaay yi jekk na amuñu lu leen fay ñu ngi leen di sant di leen gërëm lépp luñ ci jublu rek mooy Mbàkke am bés boo xam ne di ko yeneen dëkk yi amee lañ koy amee ressource boo soxla am na Mbàkke xool leen li toog ci taabal bi xool leen li toog ci baas bi le directeur Galoba voulait être avec nous mais ñëpp xam nañ ko démb def doon def inauguration pose première pierre au stade Diamniadio il n'a pas encore terminé ses engagements il nous a demandé de l'excuser et il nous a envoyé une très forte délégation merci transmettez nos salutations et nos remerciements au directeur Galoba nous sommes très fiers de lui il a montré qu'il est un fils de Mbacké et un digne fils de Mbacké monsieur le président de la CRA de Diourbel Nous ne pouvons pas continuer sans vous remercier et tous les arbitres de la CRA. Parce que depuis que nous avons commencé la nuit du sifflet, chaque année vous nous soutenez. Chaque année vous nous accompagnez. Chaque année vous nous donnez des conseils. te ku xam arbitrage xam ne quartier la bu nañu woon bu leen ko def duñ ko def ndax armée ak quartier ak euh, arbitrage ñoo yem arbitrage presque armée la bu président taxawoon nañu hey bu leen fa def niwi kenn amul sañ-sañu bi yëkkati pant kon suñu ko nangulee dañ koy sant di ko gërëm di sant nag le professeur Assane Ndiaye il a accepté d'être avec nous Assane n'est plus n'importe qui nous avons joué ensemble aux espoirs nous avons joué ensemble à l'ASC Khewergui nous avons habité le même quartier pendant des années et je ne connais du bien sur Assane s'il la accepté ce soir d'être avec nous. Parce qu'il a été le seigneur de Pape Cissé, il a été l'encadreur de Pape Cissé quand Pape Cissé jouait en cadet. Donc Assane vous êtes là, vous êtes venu à votre place et merci beaucoup. waaye nag fête bi lu mu neex neex dafa am benn kàngam boo xam ne fokk ma remercier dama am benn góor ci biir góor yi nangu la feeñ nag ñu di ko wax sëñ ma Ndour taalibe Serigne Saliou Mbacké ah. moo ma ñemeloo moo ma may doole te mooy suma lépp sëñ ma sàmba jërëjëf dama ko teg ci kanam mu ne du toog ci kanam dem làqatu ci ginnaaw muy nit ku ànd ak simplicité tey il fallait que ma tudd la ci bés bi bëggoo ko la tudd mais man dinaa la tudd ak tous les anciens qui se sont déplacés aujourd'hui le doyen Mor An Gueye mag ku dépassé 60 ans tey ñu téye ko fii kon ngeen xam ne Mbàkke soxal na ko te Mbàkke ñor na ko damay tàllal loxo waa Mbàkke yëpp di ñaan waa Mbàkke yëpp ñu suude comme un bloc jàppandoo bokk ndey ak baay jàppalante nguur yàlla moo koy joxe ku yàlla fal ñu ànd jàppale ko bu sa nguur jeexee da ngay dem mais képp ku askan wi jiital rek nañ leen àndandoo jàppale ko ndax xam ne bés bu jeexalee dina dem ndax bu deferee ñun la defaral su yàqee ñun la yàq kenn ku ci nekk gisal ne tu es un maire kenn ku nekk gisal ne tu es président kenn ku nekk gisal ne tu es un député suñ ko defee dëkk bi jëm kaw maa ngi leen di sant di leen gërëm